mbokk internautes yi dalee nag jàmm Ousmane Sonko jëlati nañu émeute yu mois de mars yile daal di koy nag teg ci dam loole nag moom yanqoo Yankhoba Diattara waxati lu ñu mel ñu ne nag quatorze doomi aadama yi nga xam ne ñoo ñàkkoon seen bakkan ni ki euh, daaw ci li nga xamante ni moom mooy émeute yi muy nag jàmmarloo yi nga xamante ni nag coowal euh, Ousmane Sonko beeg Adji Sarr bee ko daal di bu ñu sukkandikoo ci Yankhoba Diattara ne nag euh, Sonko. moom mooy nag lu jig njàkk mooy njàkk euh, tax nag alors que sénégalais yi ñu ngi wëy di réclamer justice pour nag euh, euh, quatorze doomi aadama yooyu nga xam ne ay tout tànk lañu woon ci seen ñàkkum bakkan ci événement sanglant yi amoon ci mois de mars deux mille vingt et un fii Sénégal ñu nekk ci at nak ginnaaw coow loolu le ministre de l'économie numérique et des télécommunications di accusé ki nga xamante mooy leader bu Pastef Ousmane Sonko moom Yankhoba Diattara ne je pense que euh, principal responsable bi muy Ousmane Sonko ndax responsabilité dañu ko établir et c'est naturellement dañuy bàyyi nag justice euh, mu def euh, liggéeyam waaye la may déclarer dimanche bi la ko wax moom jatare Diattara Yankhoba Diattara ca RFM ne responsable bu parti Rewmi daal di wax ne nag li ma xam mooy ne moralement Ousmane Sonko dafa war a nekk mal à ndax dañu ko war a sax daal di affecté Euh, parce que nag moom moo daal di woote ci benn combat alors que ñun ñëpp daanaka au quotidien euh, suñuy affaire privée dañu ko daal di gérer de manière privée ay manifestation yu mars yi ñu daal di nag occasionné woon euh, dafa ñëw ginnaaw arrestation wam le 3 mars ci nag atum 2021 bu député Ousmane Sonko ñu accuser ko de viol et menace de mort Adji Sarr def lu ñu mel ab jeune masseuse ci benn salon de massage Sweet Beauté ay soutien wam ñoom itam di dénoncer benn tentative de liquidation politique euh, bu régime en place bi di euh, Macky Sall moo tax euh, nag daanaka ñu bëri jàpp nañ ne moom déclaration Yankhoba Diattara bi daanaka dafa ñëw parce que moom mi daanaka nag lenn kese la am comme souci jamono ji mooy daal di préserver postam ndax amul benn légitimité ci poste de ministre gi nga xam jox nañu ko ko lu dul neexalee Idrissa Seck ñëwam nga mu daal di ñëw jëli partem réew mi indi ko ca APR ndax nag moom réew mi daanaka nag daan nañ koy amorcé ci nag local yi seul moyen bi nga xam ne moom la ñu am ñoom ñi ngir nag se faire remarquer mooy nag attaqué wu à l'opposition loola tax nag ñenn sa jàpp ne moom Bengo ba jotara la mu dara war a daal di wax nag mooy ab compte rendu gu mu war def ci détournement de moyens de l'exécutif gi mu def ci campagne électorale bi ñu soldé malgré tout ay défaite la ci jëlee ndax ay dizaine ay centaine de million la daal di ca ministère am lépp nag ca parc automobile bu ministère ba chauffeur ya lépp la daal di nag détourné ngir euh, euh, daal di nag euh, amal campagne am carburant yeeg moom neen nag kii di Yankhoba Diattara daanaka nag Ah, bu mu sax jéem a daal di nag nekk di dugg ci ay combat yoo xamante ni ça ne va pas ah, bu ñu sukkandikoo nag ci yenn internet yi daal di réagir ginnaaw moom nag eh, Yankhoba Diattara la nga xamante ni yëkkati na ko ci ay kàddu daal di koy yàq njiital Pastef bi Ousmane Sonko jël lépp ah, lu ñeel quatorze morts yi jël ko teg ko ci dodd Ousmane Sonko ne lu jig njàkk moomee mooy njàkk ndax moom moo woote à la résistance woote ci li nga xamante ni moom mooy nag détermination ak ndaw ñi ngir ñu wàcc daal di jàmmarloo